mais Boy Niang di la nuyu di nuyu nag champion yi fi de yëpp parce que yéen ñii joxkatu cigarette sax dañuy mayante mais ko rawatina mbir la ah mais c'est vrai Boy Niang li mu def defalu ko boppam ñëpp la ko defal te defe naa ne man kenn jiituwuma ci waxuma ko pour ñu ne kii day jaay affaire connaissance di wane ne moo am connaisseur la man yooyu yitteelu ñun dañoo jagoote xale yi boo seetloo bi bu bees bi am ñuy contesté dama dem man duma xeex làmb li ma ñor mooy même ñu fal ko amul compétence te ne ci ginnaawam jàppale ko moo gën ñu fal ko am compétence te jàppale wuñu la même buñ ko deful ngir moom ñu def ko ngir suñ njaboot yi yaakaar làmb war cee teral seen i njaboot war cee teral seen i wëycur kon li am solo mooy amul temps bu ñuy perte nañ jàppale seen bu bees bi ñu jàppale suñu doom yi ñu mën a bëri pour mën a réussir man loolu moo ma ñor léegi ñu ne làmb ji bon Covid bi am na ñu dajale leen moom dajale seen i jéem ak seen yóbbu wane ne dañoo bokk ci dëkk bi ñu ne nañ feebar bi dem ba làmb ba saison bi war a ubbi ñu ne non di tudd huis clos luy huis clos bu cent jours lay amee juróomi événement yu bari ñoo ci am yoo xam ne boo jaayee paas dinañ ko mën a jënd fii ba extérieur yeneen combat yëpp combat yu ndaw lay doon yooyu boo ko defee huit kilos kenn ko seetaan te amatul sponsor yu accompagner promoteurs yi promoteurs yi difficilement la ñuy tëkk ah. mooy waral ñuy jox ay billets nga jaay ko jël ci avance parce que amuñu ay sponsor ñooñu boole huit kilos loolu mooy balaa bu ñu tijji huit kilos moom mooy balaa bu ñu tijji parce que lamb ji yëmul ci Modou Lo Eumeu Sène Boy Niang ay Sika yu Papa ay Tapha Mbeur bi ay champion lañ te Parcelles dañ koy bégee te seeni événement boo ko defoon huis am na ñoo xam ne duñ mën a jënd ay paas di ko seetaan kon huis moom mooy bu la mbaam loolu wax bu yàqu la marché yi suba teel lañ koy ubbi ba guddi làmb ji tàkkusaan ngay dugg sa kër ngay julee gee kon temps bu gàtt lañ fay def nañ jël mesure d'accompagnement yi looy loolu mooy dëkk su promoteur bi jëlee cent jeunes état bi doole ko deux cent jeunes ñu ñu ñu assurer événement bi ku takkul masque ñu ne la wàccal ndax loolu mooy rôle état dañoo war a sécuriser seen njaboot hmm. bu weer dee ñoom ñu fayu xale yi def na sax rek ngeen di wéy naan suñu yi suñu xale yu bëri ndaw yi yéen yéen a gën a sonn bëri ndaw yi <laughs> non ngeen di wéy te daa métti ci yéen ndax mun leen a dem di laaji nit am ci yéen yaakaar ngeen naan dañoo yaram xale yi yéen du ngeen yaram seen bopp <laughs> nañu ubbi làmb ji ñu respecté mesures barrières yi feebar boo xamante ne nee naa état bi moo la ko ragalloo waaye léeg-léeg moo la koy ñemeloo waaw ragalloo bi mooy dañ naan la gaaw naa wàlle waaye mën na laa dal ba wér na doo ko xam boo feebar jar na ma ñu liggéey si buru bu la daloon rek doo fi jóge nañ respecté mesure barrière yi mais ñu bàyyi nit ñi liggéey parce que nit ñaa tey ci kër yi parce que moom a njëkk woo ci mbuur dama écrit mbuur mbër desatu fa xale yëpp dem nañ parce que amatuñu espoir te fii la gën a méttee te tefes yaa ngi fees dell saa yaa ngi fees dell ku ne yaakaar làmb ñu tëj làmb ji te ki la ki la tëj loo làmb ji weeru dee mu fayu yéen weer wu dee ngeen def la kon nii xeexu ñëpp la même ñu ñëwul seen xol a ngi ci man gis naa ci champion yoo xamante ne nii dañuy dem ba seen ginnaaw kër benn ruq la ñu toog di nëbb naan nekkuma fi fay seeni téléphone ah mais c'est vrai parce dañuy yaakaar ci ñoom te yéen ñu ñu bëri loolu la ñuy dund te dañoo yaakaar làmb pour man cee réussir dimbale ku ci wërsëgam ne kon ni ñuy ñaan état bi ñii buñ dajaloo woon ne nañ mars mën naa rax de non mars mbër bëgguma non man maa bëggul mars mbër ndax ñii gàmmoog ñii raas dem du benn man cee boole yu bokkul defal nañu arène nationale am nañu ne doole mais jërëjëf sante nañ ko président sante nañ ko ko waaye fépp bi ñu woon làmb ji ñu bàyyi rek a toog leen damay làmb amul bàjjen état bi bëggul man loolu laay